xamante ñoom ahlu brick paradise c'est-à-dire brick bi laa jël sapp bi brick jël ko dugal ci brick parce que ñoom ñoom ñooy cooy su sénégalais yi depuis un moment ajambe sama ñeme a réew ci groupe de rap yi parce que dañu xam ne dañu mën li ñuy def donc du coup ci seen titre yi dañ ciy réewantu quoi c'est-à-dire publicité jàmbur sax matin ak waa Akhlou Brick Paradise et puis ce qui est plaisant ils sont en train de préparer une tournée ak un événement pour annoncer seen tournée les gars nous sommes nous sommes ravis de vous recevoir ce matin euh, depuis démb gars ñu may woo euh, di euh, di wax ni ñuy xaaree seen seen présence tey ci Yeewu Leen bi mm. ñu bàyyi leen ngeen nuyoo asama na nga ni nga andaman mais lay wax foofu na nga ni nga man ni nga asama naa nga sama nice nigga te sama choice nigga te sama choice nigga man maay aka Kalza number two. naa la boole réalisateur bu mag bi après mu. yow man damay def émission yi ba. maa xalaat di liggéey télé bi te seetaanoon. <laughs> bienvenue les gars ñu bàyyi leen ngeen nuyoo ak euh, téléspectateurs yi. Oh, salaamaaleykum. Eh, non kii mag mooy mooy njëkk a wax de. <laughs> kan mooy grand kan mooy grand bi bàyyil paa bi nuyoo quand même <laughs> na paa bi nuyoo ba pare quand même. ok salaamaaleykum respecté pas bi. salaamaaleykum Mbour salaamaaleykum Sénégal. Mm. salaamaaleykum Afrique wërngal képp. àdduna wërngal eh, képp encore une fois. donc ñuy nuyu ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur TFM yi. Mhm. ak téléspectatrices yi nga xam ñoom ñëpp ñu ngi scotché wu. di leen nuyu yow Pape Cheikh. di mhm. nuyu Bijou suñu système Mado. alors man li ma gën a phrase bi ma gën a bañ ci nit yi di ko wax ñun animateurs yeeg yooyu ak yéen ñi ñuy invité mooy ñiy scotché wu ci télé yi tu penses que nit ñi sax dañoo jël scotch scotché seen bopp seen ay télé. pour man lool la kat. oh ah, àggali àggali àggali àggali àggali àggali. ok donc ñu ngi nuyu ñëpp quoi di ni fii moom suñu kër la. Mhm, euh, ni a Brick ñëwaat na tey TFM ak ban émission yeewu leen. Mhm. Hiya Rijal aka Dèye Kalla aka Serigne Sénégal. sëriñ suñu sën. salaamaaleykum Sénégal waaw. Hiya Arafat aka Serigne King yi donc may nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ah, di kontaan bu baax ci teew fii bu baax de. aka Bouba Ndour aka Alfi mais aka lan la yéen du ngeen ñu may jàmm ak aka yéen rappeurs yi mais dañu sonn ci aka ñëpp aka mais aka lan la lan mooy aka aka mooy as now as ñu gën koo xam ci ñu gën koo xam ci ah mooy gën ko xam ci mais mais lu tax yéen ñëpp ngeen koy wax ndaxte ñi ñu gënul xam ci sax dañuy wax aka <laughs> ay inconnu dañuy toog naan diw aka diw cest dire ñoom xamuñu leen ci ba di leen gën a xam ci. ci beneen du yow yaa ngi nii. vous abusez avec avec votre aka mais on est très content de vous recevoir ce matin pourquoi cest dire bi euh, euh, bett ngeen ñu bëri ah bi ngeen di def carton tombé na non seulement ak. groupe de rap yi bëri artiste rappeurs yi bëri grand yi itam bàyyi luñ ko booy parce que ñoom ay carton yu doy waar la ñuy def mais ngeen def li tubaab tuddee sortir du lot way bu ngeen génnee mu nekk it la preuve bande FM bi Akhlou Brick anytime dafa jàll ci émission hip hop yi télé bi euh, Akhlou Brick Paradise Facebook Facebook <laughs> xamul nañ ma génneel Bouba Ndour ci ginnaaw foofu. <laughs> ah aka ah, rakk Youssou Ndour aka rakk Youssou Ndour est-ce que mën na génn plateau rakk Youssou Ndour mais ñu gën koo xam da loolu lay tekki. ñu gën koo xam ci Mr ok d'accord d'accord ah mais euh, euh, loolu fàtte naa sama question sax. nu ñu def ba ba gën a génn ci loolu. voilà sortir du lot bi waaw rappeurs yi thank you aka yéen ngeen. ngeen fexe ba génn ci ba. même ku leen xamagul woon sax bu dégloo woy bi. xam danaan ñu woy ñi mais aay nañ. de bon loolu dañuy encore une fois santaat yàlla rek comment mooy que ni du ñu wax ni nous sommes les meilleurs. mais à chaque fois nous avons la eh, certitude. vous la mais <laughs> de dire que nous sommes uniques quoi. macha allah ñuy def ñun la avant tout quoi si ñun lay génnee ñun ñoo ko gëm. Mhm. en même temps aussi di wax ni garaat bi ñu am ci rap ñu ngi ko jëlee ci suufa xiwte je sais que ni 2015 wala 2016 bi lañ ñu gën a xàmmee. 2015 seen at la en fait. waaw suñu ahlu Brick parce que loolu dafa bokkoon ci li nga xamante ni moom lañ gëmoon. dañu ne woon 2011 buñ ci demee ba tollu fa. il faut euh, Sénégal xam ñu waaye maanaam dégg ñu daal. donc mhm. ñu génne sound ñun la Boy Kane dem université car le Sénégal en miniature. Mhm. fekk nañ fa xeet gu ne. ñu fay wane fa suñu bopp ñu ñuy déglu si benn sens mooy ñun la booy comme li ngay wax rek démarqué boobu noonu. Mhm. parce que tolloon nañ foo xamante ni hip hop gaal seen mooy li ci amoon mooy que ni. kenn ku ci bëggoon a génn rek il faut nga wéeru ci benn grand. Mhm. te grand yi mënuñoo jàppale ñëpp. Mhm. donc il faut yow tam nga jël say responsabilité bopp. daal di nag démarqué wu. moo taxoon sound boobu nekkoon ñun la boyukan te tey nekkul nekkul nekkul remords mm-hmm. am nañ ci satisfaction maanaam aljana gang bi paradise bi ñu doon wax ci ñun mm-hmm. am nañ ci satisfaction on a le mm-hmm. sourire quoi ñu ngi ciy reetaan parce que tey gis nañ suñuy moroom yu bari ñu ngi démarqué wu ci loolu noonu tey pour dem gëm seen wéyu bopp bën a noppal faciliter la tâche tey bu ma ñëwoon ci lu ci mel ne tey grand Boubou Ndour ne ko may ma ñaar dërëm te sama loxo dara nekku ci du yomb mhm. mais il faut que sama loxo dërëm am ci ma ne ko mottalil ma mhm. su boobaa day sawar pour job ak man mhm. ah loolu moom moo nekkoon suñuy ambition ci affaire bi quoi moo boobu 2011 la woon boobu bon c'était en 2011 tey 2015 ñu ne ak 2014 ñu ne dañuy gis teg ñu suñuy bët moo tax ñu génn li nga xamante ni mooy loolu en même en même temps aussi mettre la pierre à l'édifice comment hip hop Galsen bu ñu fekkee mu nekk dix personnes dañuy def mu doon onze comme ça bu ñu fi jógee ñu ne ah onze personnes yi Akhlou Brick moo ko fi def mhm. donc mooy ñi nga xamante ni daanuñu woon kife hip hop lu ci mel ne yenn jigéen ñi nga xam dañu ragaloon parce que y avait des mots orduriers mhm. y avait des mots un peu à travers la hip hop mhm. léegi ñoom dañuy ragal dañ naa ñee daal sont dangereux duma ma leen jege waaw donc il nous il nous fallait y la forme ko ñu def ci mu am forme su boobaa boo duggee si boppam même si était si une illusionniste di nga xam ni fii nii c'est le monde de la réalité à travers li ñuy wax lu muy neex neex neex yëpp message bi ñuy jàllale dëgg la ko di nga ko déglu. d'accord ba pare même ci rythme bi. du rythme boo xamante ne c'est trop dur à écouter. du rythme boo xam ne métti quand tu écoutes ça. non seulement aussi y a le son bi nga xam ne mun ci mun seen woy boobu ni ma neex. Eh, voilà eh, nga ne nga. loolu la nga ci wax. xanaa xaw man boobu noonu ak woyu waa Nigéria yooyu yooyu ñaar yooyu rek laay déglu tout temps sama kër à part Kiné Lam bu moo dee déglu beneen genre musical alaaji bi laay déglu alaaji sukkum suk alaaji alaaji si alaaji bu woyu waa Nigéria la ak euh, ak lu paradise ah asama denge ni nga asama soo ni nga asama seme ni nga toujours ah ma j'adore j'adore j'adore ce titre ah mais xam nga looy dangay ngay fexe jàng parole yi comme ça boo waxee sama choice mën ci wax day am feeling. ni wala nga ni sama choice ni saarata wala nga ni sama choice ni euh, ku nekk pour nga mën a distinguer tur yi donc euh, à chaque fois ñu dañuy utiliser ci euh, facilité des mots. suñu micro yi dafa baax de jarul waaw à fois dañuy utiliser ci facilité de moo di teg li nga xamante nii mooy que li ñuy gis ci nit ñi ak li nga xamante ni moo gën a ordinaire ci loolu la ñuy bind. Mhm. par rapport ak sama choice. am na benn moment boo xam ne dañ doon gis Sénégal vidéo yi doon daw en boucle la doon dawee comme ay ndaanaan comme ay kuy fëgg comme ay son yu mel nii ay son wu euh, ay njaram lambu donc c'était ces sons là yi doon passé à la télévision en boucle donc on s'est dit pourquoi pas ñuy seetaan lii te inspiré wuñ ci lii euh, y a la facilité et puis et puis et puis boo gisee ma wax la di ko woyee nii chance bi ngeen am mooy c'est-à-dire même ñu consommé wul hip hop dañuy déglu dañuy déglu Akhlou Brick Paradise. loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon objectif bi. c'est-à-dire da ngay gis ne public yu hip hop ñeneen ñi ñemewuñ ko. donc fa que ñun ñu def si loo xamante ni. Mm-hmm. ñeneen dañ koy ñeme. seen bu di utiliser. Mm-hmm. ah sama choice day day day day toog ci xaw ma. param ah ah lambul day toog ci pooju ndayam ba dégg njaram lambul. donc euh. on n'a pas créé mbalax bi lañ gisee mais suñ ko abordé si hip hop day intéressé ñeneen ñi nga xam. ñi ci mbalax bi sax dañ ko jëlee tamit ci traditionnel lu Sénégal bi. actuellement sortie bi ngeen def sortie album événement ngeen def bi ngeen ko génnee ba léegi yéen retour ngeen ci am. ak lan mooy projet yi après sortie d' album bi. yeah daa aussi dañ ciy sawar tontu album bi bu mu génnee depuis le 17 octobre. on a laissé le temps au public de consommer comme ça ñoom tam ñu mën ko déglu pour xam lan mooy album bi te tey ji ni retour yi ñu ci am yëpp satisfaction la on peut dire parce que satisfaire na leen kontaan nañ ci moo tax tey ñu mën a am sañ-sañu dem na dañuy exposer li nga xamante ni mooy album bi. mooy en terme de spectacle. en termes de concert tuddee ko Raise Up Tour nga xam sa concerne tout le Sénégal ndax dañuy woo ba au fin fond du Sénégal pour Akhlou Brick ñu ne loon mënoon nañu ñëw mais il fallait que temps bi jot te temps bi jot na mooy ñu exposer leen li nga xamante ni moom la ñu liggéeyoon ci album bi pour exposer leen ñoom ñëpp ñu consommer ko moo tax le 15 janvier incha allah ñu daal di ciblé fële moo xam te ni comme le dit Pape Cheikh Diallo souvent Kër Daniel Kër <laughs> donc aussi ñuy dem foofu mooy point de point de départ bi ah ah ah le 15 le 15 muy incha allah ce vendredi la ñu bëgg a dem mhm. pour teg li nga xamante ni moom mooy moom mooy suñu premier spectacle spectacle comme li may wax rek euh, que ni hip hop am na place foofu uh-huh. parce que depuis 88 bu ñu demee ba ba heure bii nii te uh-huh. ñun booy yi mënuñu fa am accès uh-huh. c'est parce que hmm, dañu ñemewul te dañu war a mën a de ci ci ci ci lieu yooyu nga xam ne tey jii nii dina tax wane ni euh, un artiste mooy c'est quelqu'un qui participe au surtout que vous êtes des jeunes en fait. dem leen defi leneen mais da ngeen nekk ay entrepreneur vous-même. Euh, parce que il faut il faut événement au vendredi bi da di gën a boy yi ñu nekk ay entrepreneur yamu rek ci hip hop bi. da di da di inciter nit ñi. xale yi woon leen ni moom Sénégal léegi. from nothing to something nga nekk koo xamante ni amoo dara nga dem ba am dara. Mm-hmm. te loolu da koy teel a liggéey. Mm-hmm. li nga koy teel mm-hmm. a jox mm-hmm. respect. mooy bu ñu yaakaar ni ni c'est des booy rek booy rappeur booy rappeur. Mm-hmm. nous nous contribuons sur le développement. Mm-hmm. ñuy participer ak actuel euh, lu bare bari comment. comme nous avons comme exemple tey. boo tegee Sorano concert tu tu as la salle. fay nga BSDA. contribuer nga ci état. fay nga perception contribuer nga ci état. y aura transport. chauffeur bi dana jënd essence plus ñooy liggéey seen. am na ay appel sécurité da nga koy fay. ainsi de suite ainsi de suite léegi Sénégal googu yëpp lan moo ko taxoon jóg. ñaari bopp kon ñaari bopp yooyu mérité nañ. tey corridor. wala ay genre yeneen festival yoo xamante ni dañuy récompenser benn école boo xamante ni si administratif état ou président day ñëw pour jox leen ay décor ñun tamit nous sommes des sénégalais et on mérite ces décors. ñaar da ngeen di jàng ba léegi. waaw ñu ngi jàng ba léegi. léegi léegi léegi léegi balaa balaa balaa ñuy jeexal parti bi nii euh, euh, euh, dama dama bëgg dama bëgg avis mais mais Bouba doo ci wax avis avis professionnel rek laa bëgg parce que. gis nga gis nga Akhlou Brick Paradise un minute rek astafurlah une minute rek avis avis avis avis professionnel laa ci bëgg. da ngay tekk jaarale ba pare <laughs> rapidement balaa Mamadou Mouhamed Ndiaye di revue de presse Mahmoud mu ngi toog. eh Mouhamed Ndiaye sama booy yaa ngi nii de ba ma fontowee ñoom laa lay booleel de eh booyee eh booy eh, eh, man dama am gang de booy yi laa lay booleel ñu teg la benn brique. lu leer laa la wax mais avis avis professionnel laa bëgg loo loo noo gisee noo gisee Akhlou Brick Paradise. non ma je seetaan naa leen ci kii euh, show of the year. Hmm. demoon naa seetaan je trouve euh, hip hop bi dafa <clears throat> dafa ci li ñu wax yëpp li ma si retenir. Mhm. mooy accessibilité bi quoi c'est-à-dire bi ñuy dem mu nekk musique boo xam ne ñëpp mun nañ koo. consommer voilà mun nañ ko consommer quoi mhm. sinon rek dañuy xaw xam ils ont toujours stigmatisé. Euh, rap hip bi quoi. Mhm. donc hip hop dafa bëri ay ay ay style. am xam ne. bëri ay tendance benn public bu ñu adressé waaw c'est pas mauvais ah hardcore mais aussi. am na lii aussi. te bon lii c'est moo moo gën a nekk mainstream quoi moo gën a nekk. boo gën a général ñi nga xam ne sax nécessairement du ñu déglu hip hop mën nañ ki gis seen bopp et chose booy le fait que ñu inspiré aussi si folklore bi Mhm. xam nga c' est très seetaan naa leen vraiment man loolu laa ci retenir doon. voilà et puis inspiré wu nañu sax ci Kouthia. Euh, voilà kii wa ngi ñëw. ci lépp ngi ñëw. Aara ngi ñëw. parce xam nga lan moo am solo ci lépp looy def rek su amul identité. waaw dañu muus bu <laughs> non ay Sénégalais lañ sax xam. c'est vrai dara fii. Ah. da ngay nga xam ne nii ñu ci bëgg. ci identité bi ceebu la ñuy ah lekk chaque jour. ah oui ah oui loo hardcore hardcore ah ceebu ceebu jën bi amul du te tee tee bu deux heures jotee nga lekk ceeb bu waaw kana macaroni bi waroon na am tuuti yàpp nag wax fa dëgg. oui quand même macaroni day ànd ak yàpp quoi merci merci merci avis d'expert la donc tu vois ñëpp ñëpp kontaan nañu y a plein de gens yuy bind ay messages di ñu laaj nan la ñuy def ba am billet mhm. euh, euh, pour mën a fekkee événement bi incha allah vendredi euh, théâtre national Daniel Sorano parce que njëkkante la et puis li ma ci neex mooy da ngeen ko tuddee seen jigéen bi Zeyna. Mhm. <laughs> yéen a doyee nag parce <laughs> ngeen bàyyi ba fi bàyyi fi Alfi bàyyi fi Fama ak Biso xale yi ngeen tuddee ko les marraines ah c'est grave. ah, ah ok non dafa benn benn suñu waay la benn. waaw ah, elle vous ah, donc euh, leneen li mooy que tamit li nga wax léegi ci entrepreneurship bi ak leadership bi ñu teg c'est-à-dire en étant jeune ba pare te waxuñu sax nga nekk jeune mais nga jógee sax fu sori. ah donc euh, ñu fort ci moom euh, donc ay nit yoo xam ne même fii nii TFM. Mhm. y a Books mhm. moom tamit ci entrepreneurship boobu la bokk. donc y a à la demande yoo xamante ni yëpp xam nga ak. ci la ñu bokk ak Solma voilà jeune lañ ba pare en restant jeune il uh-huh. contribuer nañ ci développement dëkk bi créer nañ benn entreprise uh-huh. même bu dul dara Zeyna aussi euh, elle vient de Tamba donc ñëw ba fi démb bokk ba ñëw buuxante bokk tout ça Fadi day feeñ euh, matin feeñ euh, soir loolu moo nekk bokk na lool loolu mën na englober jeunes yëpp yi nga xam ne ñoo fi ne parce que mënuñu citer ñëpp uh-huh. mais comme tournée bi day continuer du Dakar kese donc dina dem ñu changer les têtes bu boobaa Pape Cheikh yow y a d'autres ñëpp ñëpp en tout cas nous on viendra allez on va